Restez toujours informés sur CNIFO. Kibari Hotel Chibile Diamant. Restez toujours informés sur CNIFO. Kibari Hotel Chibile Diamant. Filamur Bitangay, Filay Khayam Khayamay. Kibari Hotel yile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci yile jamono internetu sene info point net sene info international jërë ngeen jëf di am mbégte ak contentement ba tey di leen dalalaat ci seen plateau yor yoru sene info tey nag ma di si ànd ak sama naataango yi di Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf ak du Ba xam naa dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu daal di jàllax yenn si xibaar yi Bour Sine waaleykum euh, salaam soxna Asel maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax di nuyu itam euh, suñu naataango bi Kalidou Ba di amaan mbégte bu baax rek kon di bokk ak yéen li nga xam ne moom mooy euh, plateau bi kon fas yéene waxtaan ak yéen euh, ci yoor yooru Sene Info waaleykum salaam soxna a di lay nuyu di nuyu monsieur Diouf euh, di def di nuyu bu baax ñi xam ni sur à travers seen plateforme seneinfo point net dañ dëkk baax bokk ci débat jërë ngeen jëf dalalaax jàmm kalidu si loolu tey nag Buur Sine dinañu waxtaan si ñeenti point si suñu yor-yoru Sene Info bu si njëkk nag moo di déclaration présidentielle moo di candidature présidentielle 2024 yi nga xamante ne ni ba tey xamaguñu ñan la ñu di si amal waxtaan bu yaatu. ba tey rek ñu ñëw tamit si li xew si Tunisie ginnaaw bu président bi yëkkati ay kàddu defoon benn déclaration mu jur fa nag ay jafe-jafe loolu yëpp dinañ si ñëwaat ba tey ñu continuer ak euh, turki séisme bi nga xam ni tamit amoon na fa ñu yónnee woon fa ay jàmbaar yi nga xam ni ñoom tamit ñibbise nañu yàggul dara. ñu continuer ba tey ak sport rek suñu gaynde yi nga xam ne U20 ñoom ñi nga xam ne ñu ngi xuus bu baax si wàllum. si wàllum jongante bi nga xam ne si boobu la ñu nekk ñu jeexalee ko ak suñu gaynde yi nga xam ne ñoom tamit éliminer nañ leen si wàllum basket. bu si ñu tàmbali rek ak déclaration candidature yi nga xam ni bëri na trop waaye ba tey du benn candidat bi nga xamante ne nii leer na ndaxte pour élection présidentielle 2024 candidat yi bëri na trop mais ba fi mu toll xamaguñu ñan ak ñan ñooy dem si boobule élection. waaw soxna Asel comme ni nga ko waxee gis nañ Euh, déclaration yi bëri na yi ci mujj moom mooy ci weekend bi rek euh, gis nañ ku ci mel ni maître Moussa Diop ku ci mel ni Idrissa Seck moom sax euh, mu ngi toujours ci clair obscur maanaam position am leeragul xam naa suñu naataangoo dina ci dikkaat ku ci mel ni Mamadou Ibra Kane moom it nee na dàqul doon li nga xam ne moom mooy candidat ci boobu la élection présidentielle gannaaw bi mu ab mouvement muy demee. c'est maintenant wante itam gis nañ euh, ku ñuy woowee euh, Alhassane Niang di njiital euh, jiital wareef parti boobu jiital wareef fële Thiès moom it fësal li nga xam ne moom mooy candidature wala boog déclaré ndax comme wax nga ko ba nekk nii benn candidature wóoragul dañoo nekk ci posture boo xam ne ku daal day yëglu mel ne ko ñu ngi yëglu gannaaw ñi nga xam ne kon fësal nañ bokk na ci Déthié Fall nga xam ne moom mooy PRP moom it fësal na moom moom fësal na carrément wax na position wax na ne dina doon dina samp ndëndëm ci élection présidentielle yi nga xam ne ñoom ñooy euh, yu deux mille euh, bu deux mille vingt quatre bii ñu dëgmal lu mu ci mënti doon rek euh, ay candidature yu incertain lañ parce que du ñàkk xam naa lii di parenage dina dinañ waxaat ne dina am sûrement dinañ jàll parrainage kon ku jàllul boobu le parrainage fi mu nekk nii daal benn candidature wóorugul ki nga xam ne sax moom mooy ndey mbili gi muy njiitu réew mi Macky Sall ba léegi kenn xamagul ndax dina bokk ak ah, am déet <laughs> moom it mu ngi ci niveau niveau niveau non boobu ba léegi mais sax ba léegi terewul candidature am leeragul kon daal fi mu nekk nii amul candidature boo xam ne leeragum na ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre boobu nga xam ne donte nag gars yi commencé nañ investir li nga xam ne moom mooy euh, terrain bi. xam naa ni ma ko waxoon sànq rek damay bàyyi sama naataango euh, Kalidou mu ñëw ñun si ñaari cas yoo xam ne daf ci def ay jàngat ñaari profil muy kii di euh, Idrissa Seck wante itam bi nga xam ne. Euh, mu ngi ci euh, ab tournée kon euh, Kalidou ma bàyyi la kaddu gi. xam naa comme ni nga ko waxee monsieur Diouf ñu ngi lay gërëm di lay gërëm Astel. ak mm-hmm. ñi xam ne seen internet yi. mel na Idrissa Seck ak Khalifa Sall ak lu mu am xam nga ne ñaari kàngam lañ si wàllu histoire politique bu Sénégal. Mm-hmm. Khalifa Sall ku am maturité politique la. ku am expérience la aussi. Mm-hmm. Idrissa Seck aussi kenn waxatu ko. waaye dafa nekk ñaar ñoo xam ne. vitesse bi ñoo doxee vitesse de croisière bi bokkul. Mhm. parce que si diggante bi de Seck dafa fekk mu base présidentielle dafa fekk Macky Sall. Mhm. te ko radical. effectivement normalement dafa na fekk leen. mburoog so mburoog soow bi. soow <laughs> loolu nag dafa am lu bari lu mu jur. Mhm. parce que quand même parti Idrissa Seck pendant longtemps Idrissa Seck dafa nekk koo xam ne dafa nekk toujours dans le mutisme maanaam li mu a dafa bare. te dafa nekk dafa am effacement te politique dafa laaj proactivité maanaam. ngay réagir lu bari si le terrain. ok te dem bi mu dem noonu ñu bari mel nañ ci si. mais fekk nañ ci fam si élection municipale yi ak élection yi passé. Mhm. élection législative yi. Mhm. am yeneen force yu bees yoo xam ne ñu dund si biir Thiès. ñu que mu ngi toujours ah, presque mun ne wax ne nii wii nii nii non. mais fekkee moom garde na ambition présidentielle intacte. Mhm. dinañ metti lool lool lool lool. Euh, pour mu pour pour pour mu am am am pour mu mun si génn ak doole ci élection yi di ñëw. parce que quand même su ñu mm-hmm. dëgg. Mm-hmm. ñaar ñi xam ne euh, ñoo nekkoon doole parti bi tey nekk ay kàngam génn nañ docteur Abdourahmane Diouf consulat international moom candidat présidentiel. Mm-hmm. kenn parti. voilà euh, kii tamit Déthié Fall aussi si parti bi bokkoon moo nekk numéro 3 génn nañ. te sympathisants yi bare ñi nga xam ne jàpp na Idrissa Seck comme traître ñenn ñi ngeen baal si. kàddu gi dem nañ fekk Abdourahmane Diouf ñenn ñi Déthié Fall. ñenn fekk Déthié Fall peut être ñenn aussi mën nañ sans direction de Sonko wala keneen. ok Khalifa Sall c'est un vieux kenn ko jàngal politique. parce que ku hmm. am maturité politique la. la yàgg na si. mu ngi maanaam moom mu ngi wër Sénégal même appel bi sax fekkee wu ko Barthélémy Dias moo fa nekkoon. Hmm. gis nañ euh, mu ngi dem ay côté Kédougou di wër si àll parce que bi mu dëggee prison dafa am lu mu perte parce que soo gisee génn jëmm ji gis nañu lu bare. ngir na pour animer parti bi parti bi day des moo tax masse du territoire national boobu la bëgg la bëgg amaat ok effectivement mais dafa am loo xam ne bëgg naa si revenir mhm. dama bëgg reconquérir la gauche mhm. moom parti socialiste mooy formation moom donte ni moom génn na bokk lay frustré frustré mhm. en 2017 d'ailleurs sax avec euh, moom ak euh, Aïssata Tall Sall ñoo fa nekkoon ak euh, Barthélémy Dias ñoo génnoon finalement Aïssata Sall na seen pouvoir bi mu nekk ci opposition mais dëggal gauche la Khalifa Sall di wax loolu mooy question bi ok alors peut-être mun na peut-être war nga si wax seen xalaat. ban gos la mun a parce que fekkee dafa bëgg dafa bëgg jël électorat parti socialiste. dina métti. parce que parce que Abdoulaye il y a quelques années waxoon na ne ñoom dañu am candidat mais Aïssata Sall il y a quelques mois bi mu waxee nee na seen ancrage ñu ngi toujours benn. ci Khalifa Sall pour mu amaat doole dëgg-dëgg pour mu euh, am doole dëgg-dëgg-dëgg pour mu teel def différence en 2024 il faut que mu am électorat parti socialiste donte ni parti socialiste amatul doole mais am na ay mag ay paak maire yoo xam ne toujours ba léegi ñu ngi si parti socialiste ba léegi. est ce que tey mënuñu xaar maanaam euh, comme li nga wax noonu ci biir parti socialiste boobu tey. est ce que boobu ñuy wax tey est ce que mënul doon <laughs> Khalifa Sall yaakaar loolu. politique ne faut jamais dire jamais. effectivement mais ñu bari jàpp nañ ni Khalifa Sall ak a Tall Sall ak i monsieur Mbengue Ndiaye war nañu mun ànd. effectivement mais problème mooy est-ce que dina mun jéego ak Serigne Mbaye jàmm ndax kooku tamit am ambition. si si foofu la problème bi nekk. si si si si. foofu foofu la problème problème bi aussi. Hmm. mooy Aminata mooy euh, Aminata Mbengue Ndiaye Macky Sall da ko jox post boo xam ni post bu am doole mooy HCCT. muy muy ok au conseil des collectivités territoriales des te poste boobu noonu. Hmm. quand même. li moo casque financièrement dafa bari te dafa am benn sentiment de loyauté bu mu war def envers. envers ki nga xam ne Macky am ñoo xam jàpp nañu toujours li ñu am candidat si ñoom la ñu dafa am aussi benn parti de gauche bu ñu tuddee les protestants mooy ñi nga xam ni ils sont durs dañu nekk si xeex dans la contestation. Hmm. mooy comme ñu hérité parti Mazoune Diop et ñu mel noonu. ñooñu noonu parti boobu presque dafa dafa fragmenté amatul doole. Hmm. ñenn ñi euh, fekk nañu Macky Sall peut-être les suñu passe am na ñu fekk Sonko mi bariwul. donc Khalifa Sall quand même loolu noonu su ko defee daal bataille bu métti lay doon mais su jëlee électoral parti socialiste dina ko may doole doole bu bare bare ak benn bataille psychologique pour 2024. waaw comme ni nga ko waxee rek en politique il ne faut jamais dire jamais kon <laughs> ñu xaarandi rek ba xam peut-être. Euh, rek loolu moo ci am parce que ba fii mu toll rek date bi rek la ñu xam muy le 25 février bu ñu jëm mais candidat yi ba tey kenn mënu laa wax kii bëri nañ torop mais ba tey xamaguñu ñan ñoo ciy jàll. ah ñoom ñoo si ndul jàll jërëjëf Kalidou si yooyu lee yaatal xam naa dañuy jàll si Tunisie bi nga xamante ni am na lu fa jot xew ginnaaw président bi Taïb Saïed daal di def ab déclaration di am lu mu daal di wax si mbirum ñi nga xam ni ñoom ñu ngi si biir Tunisie tamit ñu jëlee ko ay propos de racisme mu jur fa ay coow ba ñooñu lee nga xamante ni nii moo di ay étranger yu fa nekk. gi si mel ni ay sénégalais yi ñu ngi xamle tamit ne ba fi mu toll dañuy am ragal pour génni ndaxte dafa am ay acte de violence yu ñu fa remarqué ba kii di Aïssata Tall Sall moom tamit daal na di ci wax di xam xamle ni si déclaration wu njiital réew njiitalu UA Union africaine moom tamit def na ab déclaration di leen xamal di fàttaliwaat Tunisie ni ñoom tamit si Afrique la ñu bokk. loolu tamit kii di ay Tall Sall di ko rafetlu bu baax a baax moom tamit mu ngi si dox ay ay jéego si boobule mbir ma bàyyi la nga ñëw si ay yaatal buur si. waaw effectivement ni nga ko waxee mbir moom fi mu nekk nii daanaka moo lëmbee àdduna muy wax jooju nga xam ne jiital Tunisie di Kais Saied yëkkati na ko teg ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, migrants yu Afrique subsaharienne Sénégal da siy bokk. ay doomu Sénégal am na ñu fa nekk moom nag bu fekkoon sax peut-être dafa yem ci li nga xam ne moom mooy euh, immigration clandestine bi ak yooyu peut-être ak mesure yoo xam ne bëgg nañ ko jël peut-être loolu mën naa am du ko ci kenn du ko ci critique kenn du ko jox la parce que dëkkam la war nañ mën a peut-être euh, encadrer li nga xam ne moom mooy immigration bi ak nit ñi fay dugg mais maanaam yenen kàddu yi nga xam ne moom la ci toftal loolu moo indi wax ji le fait que mu ne maanaam gars yi dañoo bëgg a ñëw daal ba peupler li nga xam ne moom mooy dëkk bi ba seen euh, caractère arabo musulman bi ñu am ñu dindi ko africaniser ko effectivement ñëw ba africaniser li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy Tunisie maanaam loolu moo indi coow li wax jooju ñu bëri nag ñu ko waxee ñu jàppee ko effectivement comme comme comme racisme te te tam a wax ay kaddu c'est des propos racistes quoi quoi quoi c'est des propos racistes loolu lañ koy jàppee gannaaw bi mu amee it comme ni ñu ko gisee gis nañ ne Union def nañ ci réaction jóg nañ ñaag mais bien avant sax Union africaine ah, am na ay ONG yoo xam ne jóg nañ euh, ŋàññi wax jooju nga xam ne am na fii ci Sénégal it gis suñu ay autorité euh, wax nañ si euh, ki nga xam ne moom mooy suñu ministre des affaires étrangères Aïssata Sall wax na ci ñaawlu na li nga xam ne moom mooy kàddu yooyu nee na it mu tënku ci déclaration bi nga xam ne ab communiqué la boo xam ne kon conférence des ministres affaires étrangères yu union africaine yëpp amal nañ ko moom it mu ànd ci ak ñoom dëpp ŋàññi li nga xam ne moom mooy kàddu yi nga xam ne kon kooku la di kay seed yëkkati na ko ki nga xam ne nag moom mooy Boubacar Seye mi nga xam ne moom mooy euh, njiital Horizon sans frontière fii branche bu Sénégal moom sax euh, daf caa gën a sori moom moom ne la li moom mooy euh, fi mu nekk nii kii di kayit say kay sayid mi yëkkati kàddu Euh, dafa war a jéggalu sur le plan international dafa comme moom mooy kàddu yi nay ay kàddu yoo xam ne kàddu njëggal lay doon wax ko ndax lii day day day loo xam ne day jur ay affaire boddi boddi wante xeet mhm. dans l'avenir fu mu jëm déjà ñu ngi naan suñu naataangoo yi ñu ngi fay am ay problème mhm. am na Sénégal ak africain du manière générale yoo xam ne ñu ngi fay jànkonte li nga xam ne moom mooy ay jafe-jafe euh, pourquoi pas sax Nations Unies si boppam ñu auto-saisir question yi man loolu li nga xam ne moom mooy question bi def ci loo xam ne daal euh, dina tax ba ëllëg lu ku toll ni njiit te de surcroît moom c'est un moom moom moom moom am de droit la kii di Kaye Saïd dafa nekk njiitu réew pare nekk am de droit xam li nga xam ne moom mooy yoon xam bu ma wax li li mu mën a jur ak loolu. ko xëy na sax kon dafa am lu nekk si ginnaaw xëy na dafa am ñu koy préparé xëy na message boo xam ne la dañ koo jaarale si moom ngir mu ngir ngir ngir mu fësal ko kon nag euh, man li may xaar sax moom mooy waa Nations Unies auto saisiru ci li nga xam ne moom mooy question bi. teg ko ay daan teg si yoon ba ëllëg benn kenn daal la njiitu réew ko am kàddu du kon di wax wax yi nga xam ne yi ni mel mën naa taal àdduna euh, soxna Sel du ñàkkit xam naa sama naataango am na lum mu si. waaw comme ni ko monsieur Diop waxee xam naa li kay si wax moom euh, bett nañu bare. Mhm. parce que xaaruñ ko woon ci en tant ku bokk ci pays boo xam Tunisie bokk na ci ñoo xam ñoo njëkk ratifié charte africaine des droits de l'homme effectivement euh, lu mel noonu su ko tëñëree lu jaaxal lay doon lu ñaaw lay doon wala ñu ko vingt et unième siècle kàddu yoo xam ne dañ wax te ngay ŋàññe sa ay frères africains. effectivement surtout ñu toll moment boo xam ne ñu wax ni c' est l' heure du continent c' est l' heure des africains. des africains africains war nañu joxante loxo ñu liggéey ensemble main dans la main. je crois que quand même euh, waaye quand même li wax ñi mu wax noonu. Mhm. dafa mel rek ku janaxe parce que Tunisie dafa toll si context boo xam ne xam nga Kayseri bi mu jëlee pouvoir. mën mhm. naa ne presque Maghreb am na soixante cinq ngir fiscal réew mi dafa nekk ci conjoncture économique bu metti maanaam crise économique bu metti moom si boppam dafa mel na perte le fil parce que soo xoolee opposant mu ngi jàpp di tëj si di civil mu ngi jàpp di problème bi mu am noonu pour mu alternative pour trouver des solutions pour emploi sur le plan économique soo xooole dafa dem perte le dafa perte le fil mu ngi jiiñ ñi nga xam ne ñooy ses frères africains te loolu ñaaw la effectivement su continuer nii parce que africain ñu ngi leen saché d'ailleurs ay Mali pays yu bari mën nañ di traité avion pour ñu dellu mm-hmm. euh, Sénégal man concernant Sénégal man jàpp naa ni nekk trop dans la réactivité et non dans la proactivité parce que Aïssata Sall quand même dafa yéex def communiqué def communiqué alors que pays réagir nañ depuis trois trois trois jours quatre jours moom dafa xaar bi démb génne xam communiqué parce que Tunisie tamit étudiant Sénégal bari nañ ci ak communauté sénégalais bi. effectivement et voilà. waxaram tamit euh, taxaw nañu benn kii benn benn zone de crise pour assister sénégalais yi nekk foofu si est important. Mhm. mais quand même kay si si war attention parce que quand même cour pénale internationale war na ko mun topp. bien sûr parce que si nga xam ñu njëkk ratifié loolu. bien sûr te actuellement moment bi nga xam ne mooy toll lépp loo xam daf nekk forme de euh, racisme ak boddi kanti wàllu xeet. Ah, hmm. charte Nations Unies dafa condamné te gis nañ aussi Tunisien nañu jëlee nañu jëlee gis nga gis nga ah, dama gis benn communiqué bu important bu kii def poste hmm. Guy Marius Sagna hmm. bu frappe Sénégal dégage ndax moom nee na nee na arabe yi dañuy war a bàyyi pour Afrique changer ñoom dañuy war a bàyyi par exemple considérer seen bopp comme ay blanc. effectivement et bu ñu considérer ñu comme ñu ñu ñu. effectivement parce que ñun ñoo xam ne ñooy arab naale ak ñun africain bi ñuy dana dafa am ay traumatisme yoo xam ne mu ngi si ñun. mu ngi des dañu war a fajuwaat te faju boobu nga xam ne ñu ko faju dañu war a dugg néegul ma la xam xam ne ñun ah traumatisme bii de dundoon nañ ko wala ñu ko teg suñu ay frères africains. je crois quand même euh, war na mun delloo si xalam ki nga xam ne mooy kay si. ah te ñi nga xam ne aussi voilà ñoo ñi nga xam a ñooy ñooy ah, voilà si la table. ñu mhm. baaxul ci effectivement loolu lu baax ci suñu. Kalidou di la jaajëfal bu baax a baax si yaatal gi si loolu ñu jàll rek si séisme bi nga xam ne amoon na fële ca Turquie ba ay bakken yu bëri daal di si wadd ñu ngi demoon ba lu toll ci mille morts nekkoon lu metti si loolu nag Sénégal yónnee woon ay jàmbaaram ngir ñu dem fa jàppale leen. muy ay sapeur pompier yi nga xam ne ñoom tamit ñibbisee nañu yàggul dara kii di ambassadrice bu nekk Sénégal bu bu Turquie moom tamit ba ñu ñëwee mu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di rafetlu yooyu lay jéego yi nga xam ne Sénégal jot na ko def ci boobule séisme. waaw soxna Asel comme ni ko waxee rek euh, séisme Turquie bi ba léegi mu ngi wéy. Euh, di euh, métit yi ñu ngi koy wéy di santir ndax euh, métit dayoo bi nga xam ne kon dayoo métit bi mu am mhm. comme ni nga ko waxee léegi Sénégal nag rejoindre na li nga xam ne moom mooy élan solidarité internationale bi nga xam ne mu ngi doon am def nañ suñu kém kàttan mhm. gannaaw ay koppar yoo xam ne jàppale nañ ko réew mi si lu toll ci un million d'euros bu ma juumul tool daal ci six cent millions en tout cas de francs CFA xalif mhm. général des mourides gis nañ itam cent millions yëkkati woon yeneen deux cent millions yoo xam ne ay sénégalais jot nañ ko collecté ngir eh, jàppale leen wante itam vente aux enchères yu ay eh, mayo El Hadj Diouf ak Aliou Cissé yëre yu sunduur yëpp ñu def ko élan de solidarité boobu léegi nag eh, soldats yi nga xam ne effectivement demoon nañ ngir jàppale wala bo sapeur pompier yi demoon ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy sauveteurs yi foofu gannaaw bi ñu fa defee fukki fan ñoom it dellu si nañ dellu si boobu it élan de solidarité boobu nag nekk loo xam ne nii marqué na trop ki nga xam ne moom ambassadrice bu Turquie euh, nekk fii ki Sénégal mu demoon sax bi ñuy dem bi ñuy dem nga woon leen aéroport bi ñuy ñibbisi aussi ànd naag ñoom bo fi nga xam dem na ba aéroport it euh, teertu leen mbir mi nekk xaw na faa sax génn ay rongañ ndax li nga xam ne moom mooy élan de solidarité ba mu gis Afrique am ko ak it euh, Sénégal am ko jëmale ci ki nga xam ne moom mooy réewam leneen loo xam ne it bees na ci mbir moomu moom mooy fi mu nekk nii am na si ñoo xam ne euh, jàpp nañ leen si teg nañ leen loxo am na ñu arrêté am na lu toll ci 600 personnes yoo xam ne arrêté nañ leen mais it am na ci ay 100 et quelques yoo xam ne ñoom moom dañu ne nii dañuy tëj kaso parce que ils sont soit liés liés nañ daal soit directement wala indirectement ci li nga xam ne moom mooy euh, mbir mi nga xam ne peut-être peut-être ay propriétaires ay bailleurs lañ ay euh, propriétaires d'immeuble lañ ay ay yi ni mel fi mu nekk nii am na si ñoo bëri ñoo xam ne kon yoon teg na leen yoon teg na leen loxo am na si ñoo xam ne peut-être ñu ngi xaar procès am na ñoo xam ne dañ leen yóbbu moom yóbbu nañ leen kaso beneen mbirit démb gis nañ euh, ay supporters yu foofu foofule euh, ci kii ñuy réclamer à ce que gouvernement bi démissionné euh, avant ñoom amoon it ay opposants yu génnoon di di di kaas li ni mel li tax nag nee nañ daal dañoo gis ne gouvernement bi dafa tardé ci réaction ñu ne maanaam bi mbir mi amee dañoo gis ne kon nguur gi dafa xaw yéex ci côté réaction ba tax kon ñuy sàkku loolu ñoom ñu bëri génn Euh, di sako daal ci li nga xam ne moom mooy euh, gouvernement mi nee ñu demi ñu démissionné euh, lu mu si mënti doon rek kon coow loolu coowal Turquie daal ak la am Turquie ak Syrie mu ngi wéy daal kon di jur daal ay wax ak yi ni mel ñàkkul sama naataango it am na jàngat boo xam ne def na ko ci waaw te dina ko indi ah, incha allah. Ah, jërëjëf Asel jërëjëf monsieur xam naa comme ni ko waxee rek réewu Turquie ñu ngi di masawu bu baax. mel na Turquie ak Sénégal Turquie investisseur privilégié bu Sénégal. effectivement ndax en tant que pays frère am nañu ay liens yu bari yu unir waaye li si solo mooy partenariat stratégique gagnant gagnant bi nga xam ne moo am. moo am suñu diggante diggante Sénégal ak Turquie. ndax Turquie quand même suñu xam ne am na accord yu bari yoo xam nañ ko ak Sénégal. Mhm. dans le domaine de la communication. d'ailleurs Tayyip Erdogan ñëw na fi euh, il a un an euh, le 22 février 2000 voilà 22 le mu signé si accord benn bi dafa jëm si média communication euh, et boobu noonu ki nga xam ne moo ko parce que bi mu ñëwee moom dafa ànd ak ah, voilà moo dafa ànd ak homme d'affaires la ànd ak gouvernement bu ñëwee Dakar. Euh, accord boobu Abdoulaye Diop ministre de la culture moo signé ak euh, ki nga xam ne mooy ministre de la culture turc. turc signé nañu accord boo xam ne dafa jëm dans le domaine de la sécurité sécurité publique. Mm. nga xam ni Turquie c'est une puissance militaire léegi. ndax bokk nañ ci OTAN. ñu ngi siège aux Nations Unies c'est une puissance militaire et d'ailleurs sax bi Israël songee Palestine ñoo njëkk a réagir ñun dañoo intervenir pour jàppale leen en tant que frère musulman mm. ah, si la coopération maritime tamit am accord bu ñu signé mooy si wàllu wàllu wàllu napp gi moom ak euh, ki nga xam ne mooy euh, ministre bi yor Sénégal napp gi mooy Abdoulaye Ndoye mm-hmm. euh, am na aussi lu am solo lu ñoo def mooy dans le domaine des infrastructures tamit li jëm ci wàllu infrastructure tamit dañuy jàppale Sénégal ci côté bu bare parce que ku xool investiture yu bees Sénégal am mooy sant centre international Abdou Diouf mooy SICAP ak Dakar Arena yëpp même sax le garde des gros porteurs bi nga xam ne moo nekk Dakar ñoom bokk nañ si ñi nga xam ne ñoo ko tabax parce que ak seen industrie bokk si ñi nga xam ne ñoo ko ñoo donc euh, benn partenaire privilégié bu Sénégal su nekkee en difficulté Sénégal war na mun agir. en tant que en tant que petit frère mais aussi en tant que ñoo xam ne en tant que partenaire. en partenaire beneen aussi là pour insister mooy gis nañ aussi sur le plan de l' éducation quand même dañuy investir lu bari Sénégal gis nga école yaw si bi ñu problème effectivement ñu dégg bi tudd ñu daal di ñu daal di supprimer Sénégal parce que ñoom dañu am information ni école yaw si boobu ki nga xam ne moo ko moom c' est un terroriste c' est un jihadiste. mais ki ñu naan Guilène. information boobu la ñu am moo tax parce que renseignements généraux turcs yi ñoom ils sont sophistiqués bi ñu xamee loolu nag. ci nekk supprimé ñu indi fondation Maaruf. dañu gën a dañu gën a radical depuis bi coup d'état bi avorté bi amoon ba léegi. ñaar information yu wóor xam nga état dafa état moo am information yoo xam ne top secret la ñoom ne information yaaw selim organisation terroriste la. ok moo tax ñu tëj. ok fondation Maaruf moo leen remplacé. d'ailleurs ak ak baccalauréat il tourne autour de 97 pour cent. macha allah am nañu quatre campus ñaar yu nekk Dakar benn Thiès benn saint ak plus de 1000 élèves aussi di jàng. Mm. je crois quand même ku mel noonu su nekkee livre christian wala nu mun jàppale d'ailleurs ñu ngi vraiment euh, participation xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké quand ci waxante dëgg lu rafet la en tant que te loolu la ñu soxla ci ñi xam ne ñooy des acteurs religieux mm. ñoo xam ne ñoo xam ne dafa participer ci la nga xam ne moom mooy rafet mi entre diggante diggante diggante réew dëgg la jërëjëf xam naa dañ koy jeexalee ak sport rek muy suñu gaynde yi nga xam ne ñoom ñu ngi joué ci u bi gis nañ tamit ñu éliminé kii di Égypte ci quart de finale yi ci loolu tamit ñu gis ne ginnaaw ginnaaw ñoom avant ñoom am na fi ñoo xam ne indi woon nañ fi coupe muy euh, suñu Lions yi euh, muy coupe d'Afrique bu deux mille 2022 bi ñoom tamit indi nañ ko fi bu yàggul dara nu am ay trophée yu bëri yoo xam ne indi nañ ko fi si loolu suñu gaynde yi ñuy laajte ba xam ndax ñoom tamit est du dañ ko fi indiwaat rek pour yokk suñu mbégte ah Lion basket yi nga xamante ne nii ñoom tamit euh, éliminé nañ leen si mondial bi nga xam ne ñu ngi ko doon joué pour Sine. Euh, waaw xam naa wàllum sport moom est-ce que du ma bàyyi sama naataango rek <laughs> mu développé ci man peut-être ma joxe ci rek peut-être euh, quelque actualité rek ndax naa ne moom <laughs> macha allah li nga xam ne nag comme ni ko waxee. moom mooy euh, suñu gayndey basket yi malheureusement dootuñu dem li nga xam ne moom mooy mondial euh, basket bi nga xam ne kon ñu ngi ko war a amal euh, fële ca ñu ngi doon amal fenêtre yi fenêtre yi lañ doon amal ci Alexandrie ah. ca Égypte pour waajal li nga xam ne kon moom mooy mondial de basket boobule wante nag donte sax am nañ seen troisième match bi victoire dañoo jiital ñaari défaite yoo xam ne kon moom moo tax ba euh, seen euh, seen ki daal brisé na seen espoir kon brisé na dootuñ mm-hmm. dem li nga xam ne moom mooy mondial basket euh, bi nga xam ne ñu ngi koy waajal. beneen bi nouvelle mu neex la mooy suñu gaynde U20 yi ñu ndaw ñi nga xam ne nag macha allah ñu ngi def parcours sans faute ba ba fii. dóor nag ki nga xam ne moom mooy Égypte Sénégal dóorite Égypte réseaux sociaux yi commencé yëngatu quoi gars yi yéen dóorati nañ Égypte. waaw ah, <laughs> ah, Égypte moom. sonal nañ leen quoi état dañuy fayu dañuy fayu. nekk nii fayu la quoi yu ñu defoon daal passé la ñuy fayagu nii instant bi kon lu leer kon ñu dóorati leen 3-0 muy euh, victoire boo xam ne. victoire bu neex la nekk defet bu diis ci ñoom parce que dañ sa dëkk nga organisé yi te ñu dóor la génn la li nga xam ne moom mooy compétition bokkatuñ si li nga xam ne kon bi ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu gaynde yooyu kon ñu leen di ñaanal rek euh, ñu dem ba indiwaat euh, final bi ah, comme ça euh, kii de victoire yi continuer quoi dynamique victoire bi ñu nekk moom mu ngoog <laughs> dynamique de victoire moom warul dagg instant yi daa war a continuer quoi kon ñu ngi ñaan ñu jël li nga xam ne moom mooy CAN bi beneen actualité bi may jël rek balaa may jox sama naataango bi Euh, moom mooy euh, fi mu nekk nii Sénégal moom mooy euh, jiite li nga xam ne moom mooy nan laa koy waxti sax AIP association internationale presse sportive ah, section Afrique ah, waaw section Afrique Sénégal moo koy jiite li ko waral dañu amoon ab congrès boo xam ne kon ñu ngi ko doon amal fii fii ci ndakar sax moo ko dalaloon ba loolu amee nag kon ki nga xam ne moom mooy suñu naataango confrère euh, Thiam yaakaar na Abdoulaye Thiam moom lañu ñu tabb kon fi mu nekk nii moom mooy njiital kon euh, AIPS euh, bu bu bu Afrique section Afrique fi mu nekk moom moo koy jiite muy la am solo footballu Sénégal sportu Sénégal du gis nañ sax njiitu réew Macky Sall def ab di ko ci di ko ci félicité loolu nag mu ngi am euh, gannaaw kon li expliqué léegi euh, congrès boobu nga xam ne ñu ngi ko doon amal fii ci Ndakaaru mais ci consensus ci consensus nag maanaam euh, demuñ sax ci vote maanaam dañoo waxtaan ki nga xam ne moo nekkoon ab candidat yi te nekkoon Marocain mu désisté mu waaw désisté ñu bàyyi ko place bi léegi fi nekk nii choisir nañ ko moom mooy njiital kon boobule association nga xam ne lu am solo la ci Sénégal en tant que Sénégal taxawaay bi nga xam ne war nañ ko amaat ci sport yaakaar naa day rek dynamique bi nga xam ne kon ñu sport Sénégal mu ngi si Eh, ndam yi daal mu ngi gën a wéy di gën a bëri te yàlla na gën di wéy ma bàyyi sama naataango kon kàddu gi ah. waaw ma waaw ñu ngi lay gërëm ba Asel ah, monsieur Diouf ndax xam naa comme ni nga ko waxee rek ah, fenêtre yi ñu doon fenêtre qualification guddi moo ñu amal ci ci Alexandrie mel na Sénégal toog na ndax dafa am ñaari défaite troisième match mu dóor hmm. mel na mën nañu wax ne football Sénégal mu ngi avancé mais basket bi quand même at am na ay jafe-jafe. am na jafe effectivement. mais quand même mën nañu jox tamit benn substance atténuante ki nga xam ne mooy euh, ki nga xam ne mooy coach équipe bu basket. parce que voilà. waaw euh, Ngalo parce que quand même euh, dem si participation bi alors que joueurs yu mag yëpp ñëwuñu. ñëw góor gi si ñaar joueurs yu mag yëpp parce que quand même NBA règlement bi fa am mooy en plein championnat mënoo dem compétition. ok. te loolu peut-être dafa ñu gàllankoor xam nga Russie quand même match bu ñu pes mu ne wax ni il marque environ bu ñu minimum 15 points. Hmm. ku mel noonu suñ ko amoon su ko suñu gars yi gagné tamit écart du bari. ok parce que je suis certain que Sénégal day gagné. day gagné waaw à moom xam li Abdoulaye Diaw doon wax doon Abdoulaye. li Abdoulaye Diaw doon Abdoulaye Diaw nee na nee na football. Hmm. soo ko nee na nga jël benn balle sànni si sa sànni si di foofu. Hmm. d'ici quelques années football bi day ñor ok Sénégal actuellement dafa toll foo xam duñu teg mu gagné. Mhm. te man gëm naa ne ni ñuy gagné ni bi te d'ailleurs sa CHAN bi am na ñetti joueurs yoo xam ne jën na leen si équipe euh, bi football CAN bi. mooy Pape Amadou Diouf attaquant bi keroog mu dugal mu nekk génération foot. Mhm. jël nañu Lamine Camara mi nga xam révélation la jël na trois mu ngi si équipe U19 bi mhm. euh, moom tamit jël nañu ko. donc loolu li ma wane rek ni mooy football Sénégal moo njor moo toll moo toll foo xam ni. Ah, dafa dafa dafa ñor parce que quand même il y a longtemps neewoon nañu Sénégal dafa nekk pays boo xam ne coow rek mais dañu gagné daal mais à force que ñuy créer Sénégal danañ nañ créer un monstre boo xam ne ñu teg ñu jël ko. gars yi defaru suuf ñu jël ñu jël ba jóg effectivement waaw je crois quand même équipe bi sax gis naa ne moo gën a forte ndax quand même ils ont tout le monde phase de poule meilleure attaque meilleure défense yooyu bi encaissé. te am na ay joueurs yu expérience yu nekk comme Samba Diallo mi nekk Dinamo Dinamo Kiev. maintenant fële fële ci Ukraine. voilà joueurs yu expérience yoo xam ne je crois quand même équipe bi am naa yaakaar quand même war mu indi baal coupe et loolu boo xam fédération ñu ngi koy def ak autorité ñu ngi si gërëm et ñu gën a football local bi parce que foofu lay dooree. GFC génération fu GFC Guédiawaye FC ak Dakar Sacré-Cœur ak Teungueth FC gis nañ joueurs yu bare bi bi bi bi passé. Euh, signé nañu ay contrat. Mhm. d'ailleurs Lamine Camara signé na Metz. Pape Amadou Diallo attaquant bi signé na Metz. Mhm. Malick Mbaye aussi signé na Metz. gis nañu Ousmane aussi signé na Arabie Saoudite si benn club saoudien donc loolu li ma wane rek mooy tamit football Sénégal mu ngi émerger et vraiment. ñu ngi rafetlu dynamique boobu te ñu ñaan aussi ñu jëm ci kanam. Mhm. Ah, ngi remercier aussi ñu ngi féliciter Abdoulaye Thiam aussi en tant que euh, en tant que journaliste boo xam ne yëngu dans le sport. de nekk agent presse. moo jiite alors euh, association sportive bu effectivement su ñu yi loolu de day wax day jëmmal li nga wax rek. Mm-hmm. dañu toll dinañu boo xam football Sénégal quand même dafa nekk actuellement dafa ci ci voilà ci ñoom waxtaanam comme li di wax ñu ngi mm-hmm. euh, xam naa fi la ñuy yem si xibaaru tey ma bàyyi leen ngeen tàggatoo rek ñu daal di tëj ba ëllëg incha waaw soxna Asou maa ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfalit euh, sama naataango euh, ba di jaajëfalit suñu caméraman bi euh, di jaajëfal mbokk internaute yi nga xam ne kon saa su ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci yor yor seen Info di leen jox di daje kon rek àllarba incha allah. ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf Asel jërëjëf monsieur Diop mbégte bu rëy la woon tey ma participé seen débat seen seen kër fii di Seneinfo point ñu ah, ngi gërëm baax aussi yéen internet yi j' que euh, j' espère que quand même débat intéressant na xam naa li mu nekk alpulaar moo tax wolof bi leerul moo tax <laughs> ngeen jéggal ma ci yenn paak yi. Euh. ah di baax. jërëjëf Buur Sine si yaatal gi comme ni ngeen ko waxee rek di jaajëfal suñu caméraman bi di jaajëfal tamit internet yi nga xam ne ñu ngi ñu doon suivre si yor yoru Sene Info di leen jox dig daje ginnaaw ëllëg incha allah jërë ngeen jëf. Restez

xibaar yu wër te leer ci biir jamono